ñi nga xam ne dañoo bokk ci benn bokk yakar ak ñi nga xam aussi dañoo ñëwaat ñëw di jappalé ci le président Macky Sall muy toute la mouvance présidentielle. ndax tey jii bu ñu xoolee gis nañu ne ñëpp dajé nañu fi lool nak du nabu kenn ndamul ñëpp la ndax équipe mo ngi nekkoon di ko liggéey ci ay fan yu bari noppalu wuñu neen wuñu guddi neen wuñu ba suñu borom may ñu li kenn ku nekk lam man ak lam am. mu mu indi ko ci kon loolu moo indi lii euh, bu ñu gisee aussi mu yombe nii ndax ki nga xamante ni moom lañ doon liggéeyal aussi moom la yàlla may lu mel noonu muy président Macky Sall nga xam ne ñëpp gis nañu dimension consensuelle bi nga xam ne am na ko ci réew mi ak ni mu tàllal loxo mboolem sénégal yi ak ni nga xamante ne bi aussi noonu la ko nit ñi nangoo kon ñoom ñëpp aussi moo tax moom bu jógee ne man maa soxla kenn ku nekk denc la nga xamante ni bi xaj na moo la doon dëngale wala moo la doon jaxase ak sa morom ñëpp denc loolu ñu ànd retrouvé wu donc tout de sa personne ngir man a am ndam li nga xamante ni am nañ ko tey nekku doon loo xam ne dañuy toog rek jàpp ne mbir mi sotti na dara sottegu liggéey bi dañ koy wéyal di ko continuer di gën di waxtaan di di di gën di di di di booloo di gën di jaxasoo pour que li nga xam ne aussi bëgg nañ ko ñu man ko am di sant ñëpp di ko tàmbalee ci président Moustapha Cissé Lo

mag ñi aussi gis nga àll si la léegi la fi jóge kenn desul Serigne Bassirou Mbacké Tib mi ngi fi woon soxna maam Xarim Mbacké mi fi woon donc bëgguma sax lim chef du village bi jàpp na ci bu baax a baax Abdou Lahad Ka aussi laat sekk nee na woo na ko joxe na contribution donc ak ñëpp sëñ Modou Bara Dolly si jàmbaar la ci kon daal mën nañ ne kenn desul sëñ Isma ma nga nële euh, Sidi Seck ma nga nële euh, Mor Gueye mi ngi sama ginnaaw honorable Matar Diop aussi moom moo nekkoon mandataire bi kon kenn desul parti alliés yi wax naa ko léegi kon daal vraiment ñoo ñëpp ñoo ñoo ñoo dajaloo nekk benn and xam ne que lii ñu sumb ñoom bu ñu àndee nekk benn xajuñu ci ndax ku ñëw fii tey boo xoolee di nga xam ne ñii lu ñu song danañ ko daal moo tax dañuy kon ne liggéey loolu incha allahu am nañ yaakaar ci ne li ñu bëgg suñu borom danañ ko def